الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة أصيلا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ به جل وعلا من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ونشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد wakilina mu sant yàlla subhanahu wa taala lépp lu ko di ko ñaan jéggal ñu suñu bakkaar ñu seet ne amul benn buur bu yow jaam dul moom te ñu yëngu koy bokkaale kenn ñu seet ne suñu sonn Muhammad alayhi salaatu wa salaam jaamam na daaw la tamit kon la yàlla na la tayal ñu ko moom ak i saxaaba ak képp ku dox ci jubam di rafetal léegi pour que yéen ñëpp ca biir amante mbokk yi ñu ne fas yéen bopp leen leen dara yàlla subhanahu wa taala ñun ñu ko déggee ci alquran karim yi ñu ngi jéem gaay yi itam na ngeen ma ragal lépp lu dul ragal lépp boo leen dal ci man lu dul da ngeen wommat ko waroon ko di di mbokk yi ci yàlla ñu leen ñu noppee bis bu jàdd bi bisu màgg bi di bisu tabaski muy gis bu ñuy fàttali tawxiidullah min kenn yàlla muy gis bu ñuy dundalaat yéen ñi sunna yi Muhammad alayhi salaatu wasalaam muy bis boo xamante ne li ñuy fàttali mooy natt bu yàlla nattu woon jaam Ibrahima alayhi salaam ci mu rekk doomam bi di Ismaïl kon gis la boo xamante ni gis la bu ñuy fàttali bu leen di sacrifice Ibrahima sacrifice woon lépp dundam ngir kenn yàlla subhanahu wa taala te di sacrifice bi mu mujjee taxawal di waral tabaski mooy yàlla leen ko ren de sa doom bi Ismaïl te ba lii ñu taxaw ba war a jëfe ndigal bi yàlla subhanahu wa taala ne ko yaa Ibrahim qad saddaqta ru'ya dëggal nga li nga xamante ni moom mooy sama ndigal ma wàccoon ci kaw sa kaw mooy nga ren sa doom yàlla mu wa fadaynaahu bi dhabhin adhim ma remplacé ak borom doom bi Ismaïl di di tabaski tey mbokk yi sax ñu gis boo xam ne daal lañ defoon ci digganteem boroomam sacrifice yooyu la yonente bi alayhi salaatu wa salaam def ci biir dundam yëpp ngir islam bi egg fi nga xamante ni tey fépp egg na alayhi salaatu wa salaam dafa sacrifice dundam ba ci ay moyens yu mucc Faatima doon tiim ko ni ko yow bàyyi loolu maanaam kan ngay noppal mu ko gis ni nga koy diine yow sa bàyyi ko gis keroog la alayhi salaatu wasalaam nga ne ko génn naa noonu la alayhi salaatu wasalaam yarawal saxaaba yi radiallahu taala anhum ajmain ñu sacrifié woon seen bépp dund Abu Bakar Siddiq radiallahu anhu la mu amoon ci alal keroog bi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamale lan mooy islam islam tàbbi ci seen yeneen xol yi ñu xam li leen di xaar ci ngërëm borom bi subhanahu wa taala la jël lépp luy alal def ko ci diine islam moo tax yàlla mu ne naaran tawassa la yaslaha illa al ashqa alladi kaddara wa tawalla mooy safara sa soo xamante ni yàlla mu dafay jëf-jëf yi waajalu ma ko lu dul jàmm ñi nga xamante ni dañoo beew dañoo fàccirlu mu ni وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعلم الواسع يحفظ من فوق دي أبو بكر الصديق رضي الله عنه من سفر سيد يعني من كفرين من شق بلد الله mu ni moom de dafa jëloon lépp luy alalam def ko ci yoon yàlla dafa koy def yàlla bés moo tax mu koy def yàlla mu kooku de dinaa ko xaare ak sama ngërëm radiyallahu anhum wa radu anhum noonu la ñeneen ci saxaaba yi jëloon seen dund sacrifié ko ngir am li ñu am tey ci islam ak yeneen di xaar ëllëg yowmal qiyaama ci xewal borom bi Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu bokkoon ci famille bu riche famille boo xamante ni milliardaire la Mus'ab moomu keroog bi ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam xamale lan mooy islam wala ay milliardaire alal dugg biir Madina yonente bi alayhi salaatu wasalaam yónni ko keroog amul kër boo xamante ni ko dugg mu dul kër ga jëm nga ko koy wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasulullah mu ñu ne sacrifié sa dund ngir tasaare ngir islam musab moom doon na milliardaire keroog ba mu faatoo ci xarit islam lañ ko waroon sànge mooy tàngaayam bu ñu sàngee bopp yi tànk yi dafay feeñ bu ñu xëccee ba muur tànk yi bopp yi dafay feeñ kooku la ko jaraloon moom mooy lii di islam noonu la kenn ku nekk di ab jullit waree sacrifié lii di sa dund ci yow yàlla ngir dal moom ñu sante borom subhanahu wa taala dara moom mbokk yi nañu sacrifié suñu temps ci jaamu yàlla sacrifié suñu alal ci jaamu yàlla sacrifié lépp loo xamante ni mu ngi suñu kanam seytaane dañu ko rafetalal lépp ñu sacrifié ci suñu bakkan yi ngir ëllëg ñu am ngërëmal yàlla subhanahu wa taala boo bis tey jii li ñuy fàttali ba tey mooy tawxidullah kennal yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ni man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu ya'malun yàlla mu ni képp koo xamante ne day jëf na jëf ju sell jëf ju sell mbokk yi mooy li yàlla digle yàlla lépp lu mu digle dafa sell waaye nga jëfe ko nag ni ko alayhi salaatu wa salaam jëfe ko yàlla moom lépp ku def loolu dinaa la defal dund ko tey fii ci kaw suuf te yow nag yaa xam boo ñëwee xam ne mooy ki mën a fay yàlla yàlla defal noonu la borom bi subhanahu wa taala waxee ni wa man a'rada an dikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na képp koo xamante ne nag bàyyi nga fi sama waxtu yi muy fi mu waxee ni muy alquranul karim muy suñu constitution mu ne képp koo xamante ne bàyyi nga ko kooku dina dund dund bu xat te yawmal qiyamati bu ñëwee silmaxa lay doon wala iyaasu billah wakil tawxidullah kennal yàlla subhanahu wa taala yàlla mu ni man maata laa yushrik billahi shay'an daxala janna alayhi salaatu wasalaam moo ko wax mu ni képp koo xamante ne faatu la te bokkaale woo ak yàlla ak kenn wala dara di ma dugg aljanna mu dem ci ni wa man maata yushrik billahi shay'an daxala naar képp koo xamante ne de faatu na fekk moom dafa bokkaale borom subhanahu wa taala kooku dinaa ko tàmbal ci këru safaan wa yàlla ci yàlla musal yonente bi alayhi salatu wasalaam waxam na tey ci xarisul qudsi ci anas ibnu malik radiallahu anhu wax ni yàlla mun yab na aadama law ataytani law ataytani bi quraabi ardi xataaya tumma laqaytani laa tushrik bi shay'an la ataytuka bi qiraabiha maghfira mu ni yow sama jàmm yow doomu aadama soo ma diggalee ëllëg yow ma qiyaamati ci ay bàkkaar yu fees dell ba toll ni suuf si fekk ci bàkkaar yooyu gis ma ci lenn loo xamante ni loo ma bokkaale la ma jéggale bépp bàkkaar boo xam ne ko nga gis mbokk yi bokkaale yàlla ni mu rëy ci borom bi subhanahu wa taala moo tax moo waxal fa ni innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu an-naar wa ma lil-zaalimiina min ansaar mu ni képp koo xamante ne bokkaale na ak yàlla kooku yàlla araamal na yaramam bi aljanna maanaam ajjana doo fa dugg yàlla ci àll sal dëkkuwaayam nag moom mooy nekk safara wala iyaasu billah mbokk yi dañu gën a rafetal suñu pas-pas suñu diggante ci borom subhanahu wa taala ci sellal ko gennal ko bañ a jaamu kenn ku dul moom bañ a ñaan kenn ku dul moom bañ a yaakaar kenn ku dul moom ndax moom mooy alqaadir ala kulli shay mooy ki am kàttanu lépp moom yàlla subhanahu wa taala mooy bi nga xamante ni ku mën lépp la ku telewul dara noonu la borom bi subhanahu wa taala wax jël xam ni fa man kaana yarju liqaa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada képp koo xamante ni yaakaar nga ëllëg nga tasanteeg ngërëmal yàlla subhanahu wa taala mun ko ko bokkaale ak kenn mbokk yi ndax islam dañoo digal la muy julli ak di woor ak di saraxa yooyu yëpp islam dañu ko digal wante li mu gën a saxas bi mooy ñu defaraat suñu jikko yi mbokk yi képp kuy seetlu di yàqat xam ne jikko yi yàqu na ci kaw ba ci suuf ci wax yi ci jëfalante yi ci doxalin yi ñu déglu alayhi salaatu wasalaam ñu wax ci lii di jikko ju rafet mu ne innal mu'mina la yudrika xusnu xuluqihi darajata saa'im al-qaa'im yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na jullit bi de kii nga xam ne dafa gëm yàlla di yem rek ci ay farataam sax julli bu jotee mu dem julli woor bu jotee mu dem woor yi lu mu am na bokk ak nit ñi wante jikkoom jikko ju rafet la yor du lor kenn ci ay loxoom du wax kenn lu ñaaw képp sax boo xamante ni jëmale na ci moom lu ñaaw dina ko mun jéggal la moom alayhi salaatu wasalaam nee na kooku de dina am daraja yàlla dina ko yëkkati ba mu mel ni ki nga xamante ni da koy sax dakk moom ci woor waaye guddi yi muy taxaw di ko naafila kooku daraja bi muy am ci yàlla ki nga xamante ni jikkoom dafa rafet noonu la ko yàlla yëkkati ci ay daraja yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxaat ni inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyamati ahsan ahsanukum axlaqa ki nga xamante ni ëllëg yawma alqiyamati maag moom day bokk jataay mooy ñi nga xamante ni bokk na ci ñi nga xam ne dañu rafet ci mu ne ñi nga xamante ne nag ëllëg yawma alqiyamati danañ ma sori fa ma nekk duñ ma sax seen mooy ñi nga xamante ni seen jikko dafa ñaaw yàlla yàlla defal ñu nekk dëgg-dëgg jullit yàlla defal ñu wommat ñu ñu teg ñu ci ratam ñu def yi foo tamit suñu xol yi laabal ko ba lépp loo xamante ni lu ñuy bëgg la wala lu ñuy bañ lépp mën yàlla kese allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd الله أكبر الله أكبر لا إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقته إنا بنسألك يا سبحانه وتعالى لذكر عيسى بن جلال عليه الصلاة والسلام ñu ñaan yàlla suñu dëkk bii di Sénégal yàlla na fi yàlla dolli jàmm def ko ci àdduna bi yëpp suñu njiitu diine yi ñu suñu kilifa diine yi yàlla na yàlla sàmmal leen yàlla defal leen ndëgër laay dëgg-dëgg ragal yàlla ba ñu mën cee gindi jaam yi nga xamante ni yaakaaroon ci ñun lu dul ñu orienté leen jëme leen ci yoon yàlla yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ci alquran ni ma kaana li basarin an yutiyahu llahu alxikma an yutiyahu llahu alkitaba walxikma walnubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون yàlla suñu borom subhanahu wa taala ni defal moom mi def lenn ci daraja yoo xamante ni fan lay xaar mooy nga orienté nit ñi ci yoon leen yoon yàlla wante defal ko ne daraja teg la ci place boo xam ne da nga war a orienté nit ñi ci yàlla nga leen wax sa bopp di leen gëmal sa bopp di leen wax loo xamante ni lépp si yow la ko li war ci képp koo xamante ni yàlla teg na la fi mu la teg ñu ngi xaar si yow dañu yàlla nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na muy nga orienté jaamu yàlla ñu ci fi leen jëmale seen borom subhanahu wa taala mbokk yi dañuy ñaanal suñu kilifa yi aada mooy yàlla na dégg réew mi ci yàlla defal leen benn benn la seen jàpp bon leen benn la seen xalaat yàlla woyofal yan seen kaw ba lépp nit ñi askan bi di faar si ñoom ñu mottali ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam li muy yónni Muaaz ibnu Jabal ca fankar yónni dafa wax ni ko yow Muaaz li ma la dégg mooy ittaqi duaa al mazlum na nga moytandu ko ñaan ku ñu tooñ ok mooy message boo xamante ni képp kuy njiit ab askan lëmm mu yëkkati la fan la teg la ci bërëb kenn ku ci nekk ak yaakaar bi mu am ba teg la fan la mu ni ko yow mu aas na nga moytu ni ko ñaanu ku ñu toll ndax amul lu dox ci diggante ñaanu ku ñu toll ak boromam benn kiraay maanaam ki nga xamante ne dañ koo toll même bu dee ne koo xamante ne ku gëmul yàlla la bu la ñaanalee ñaan ko amul kenn comme kiiraayam bu dul mu dal sa kaw te képp koo xamante ne yàlla def na la def ko moom na mbokk ànd da nga moytandiku lii di am yi nga xamante ni mën naa bàyyi ko ci kenn ku nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñu ngi wéy mbokk yi ñuy dégg bu baax lii di ashabab muy jeunesse bi ci fatra muy temps bi nga xamante ni yàlla lépp na leen ci lii di gàttal seen lépp mat ci seen xay ñu góorgóorlu ci yoonu yàlla jaamu yàlla rawatina seeni waajur yi nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala ni imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilaahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وهو ربهما كما ربياني say wayjur yow na nga doon fos ci ñoom taxawu leen comme ni nga doon taxawee bi nga nekkee gone bu ndaw nga woon dara di la ko waxee ci leen nekk na nga doon seen bët doon seen tànk doon seen alal bi nga xamante ni ñoom dañ la yomal feew ci bunte bi bu ñu am layoo bu ñu layoo ci seen ginnaaw mbokk yi lii di fukk jeunesse bi ci li ñuy tox wala li ñuy naan wala li nga xamante ni xaw na si jamono tey di sànq ndaw ñi kenn ku ci nekk di borom kër cib nga ci yàlla yàlla sàmmal ñu suñu ndaw ba yii la yoon nga xamante ni seytaan mu ko teg suñu kanam dañu rafetal yi dañu won àdduna dañu sax fàtte la ni yow nga xiyaamati am na dañu fexe bàyyi xel li nga xamante ni moom ak yooyu doo fii da yàlla mosal ci yàlla mu ne fa laa taxuurannakum al-hayaatu dunya wala yaxurannakum billahi al-ghurur bu leen àdduna bi yëpp mukk mool bu woor bu leen seytaane woon lenn ni àdduna ba mu tax ngeen dugg ci lenn loo xam ne dafa yàq seen àdduna mbokk yi naan sàngara ana ban jëriñ la am ci jullit bi bu dul yàq ab xelam yàq ab xelam tux ana lan la mën a gëral doomu aadama bi dugg yàqal la sa sànq yàlla mu ne wala tax dugg am sa bopp bu leen lay seen bopp ki la defaral cigarette sax lan la ca bindal mooy ab dangereux pour la santé tox yi ngay jëfandikoo baaxul ci sa santé moo tax yàlla mu ne la bu leen rey seen bopp ndax lii nga jëfandikoo comme la jëfandikoo moom mooy yàqal la sa àdduna yàqal la sa àllaaxira mbokk yi ñoom ñaanal suñuy kilifa diine ñaanal suñu kilifa aada waaye ñaanal ñi nga xamante ni ñoom la yàlla dégg ñu nekk ak ñoom ci carte yi suñu délégué carte boobu ba ko sëriñ sëriñ la waaye sàmmal ko sàmmal ñu ñëpp boo xamante ne ànd naa moom ngir suñu gox bi doon gox bu nga xamante ni gox bu ñu naaw suñuy soxna suñu jaay yàlla yàlla sàmmal ñu leen bàyyi leen si suñu kanam mbokk ñu wuute suñu njaboot teg leen si yoon bi nga xam ne loolu siraatu mustaqim suñu imaam yàlla yàlla sàmmal ñu leen ba lépp lu ñuy xaar ci ñoom mooy ñu war a yàlla doomu aadama yi wan leen yàlla yàlla yàlla woo na leen yëpp nga xamante ni moo nekk seen kaw waaw commission bi nga xamante ñoo taxawee jumaa ji ci bépp comité nag yàlla na yàlla fay leen seen taxawal yàlla yàlla sàmm leen jàmm li nga xamante ni moom lañ am suñu cité bi yàlla na yàlla yaatal ko mu law ci àdduna bi mu law ci Sénégal fitna yi nga xamante ni moo nekk ci àdduna bi yëpp ñu koy dégg fenn fu nekk yàlla yàlla def ci jàmm yàlla yàlla sàmmal ñu suñu charge mooy suñu man bi nga xamante ni saa yu mën ko gis leen suñu kanam ñu ñuy orienté li ñu jot yàlla yàlla sàmm nañu suñuy ndaw defal leen ñëpp ndaw ñoo xam ne ñu jëriñ seen bopp jëriñ seen bopp jëriñ ñu gis ndax yëpp ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا الى صراط المرسلين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير